والقلم وما يسطرون mbokki jullit yi compagnie C3S dellu siwaat ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bii nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg a bokk ci jongante yi da ngay bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique C3S bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt ren coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg bokk ci joŋante yi say at warta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala et cetera ñi bëgg a bokk ci joŋante yi te bokk ci régions yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Ibro Sogi wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala Serigne Ousmane Diama nekk Ranérou 77 784 15 46 wala Serigne Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 751 ku ci bëgg ay leeral foo mën di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 alxuraan ku ca am ak na meel koy goreel anta bi ni'mati rabbika bi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 julli géej gi di événement bu mag bu war a am le 21 septembre ca Dakar muy bis boo xam ne ndigal la bàyyi ko ci xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha wàcc ci kuréel bi ci njiital soxna Soda Xumma ak euh, njiital Serigne Youssou Diop Hizbut Tarqiyyah nga xam ne moom la leen Serigne bi booleel ngir ñu saytu ko taxawu ko waaye ci njiital soxna Soda mi nga xam ne. moom la sëriñ bi wax ne na dox ca kanam ndax man na ko yore liggéey bi alhamdulilahi muy lu am solo nag di bis boo xam ne euh, bis bu mat a fàttaliku la ndax bis la boo xam ne ci ndam yi nga xam ne euh, lislaam am na ko la waaye bis la boo xam ne it bisu soññee la bisu xam wàccuwaay bi nga xam ne suñu boroom Sëriñ Tuubaa jaral na ko ko muy di ko jaamu ci guddi yi di ko jaamu ci bëccëg yi di ko jaamu ci xur yi di ko jaamu ci montagne yi di ko jaamu ci doj yi ba di ko jaamu ci kaw géej loola la muy tegtal rek muy ak bëggam yàlla ak jaral gu ko borom bi subhaanahu wa taala jaral muy xew-xew boo xam ne nag sëriñ bi ci boppam nettali na ko ñenn ci mag ñi mooy ñu àndaloon taxaw ak ñoom ñenn ñi indi ko ci biir seeni mbind nettali ko ci boo demee ci ku mel ne sëriñ Moulay Bousso radiyallahu taala anhu moom sëriñ Mbacke Bousso euh, nettali na ko waaye sëñ Modou Khary Bousso moom sëñ Massamba Fati nettali na ko sëriñ bi nettali na ko sëñ mu lay xasida gi mu doon def ci tukkib géej gi ca biir ci julli géej gi la ci indi wa mi yammi sallal asr yajri bi jildihi maxal fulki yabdu raakian xayra saajidi nga xam ne julli gi ëndaale na sax ne tàkkusaan ji fa la ko fekk mooy waxtu woowu mu ci tudd julli na ko ca géej ga derba di daw ànd ak bato ba muy sujjóot sujjóot bu jëkk di rukon kon bu jëkk te bokkoon na ci charte liggéey bi nga xam ne moom sëriñ bi moom la doon liggéeyal yonente bi alayhi salaatu bi suñu boroom boole woon na ci waxul waxtu waaye du julli ci lu dul waxtu wax nga xam ne bu waxtu wi jot lay tollook mu nga ca liggéey bi mu nga ca julli ga di jaamu boroomam bis boobu it xam nga ne Cheikh Mamadou Mountakha mi ci joxe digal tey moom la asayxu saalix joxoon ndigal ca 1994 mu taxawaloon ko ca ndakaaru bis boobu it yàlla defaloon na tawfiq soxna soodo xumma sëriñ bi woowoon ko joxoon ko ci ndigal moom sëriñ Mountakha ngir mu taxawee ko àndoon kook moom liggéey bi jiite ci jigéen ñi ci liggéey bi ba ñu ko dundalee ba noppi mu dellu siwaat yëgalaat ko sëriñ Saalix sëriñ Saalix xamal ko ne ko loolu ëpp naa def kon benn yoon mu nekk ndigal loo xam ne kon na ko waa ndakaaru di taxawal te di ko amal murid yëpp di taxawal te di ko taxawale fa ndakaaru kon bu ñu dellu si tey ba ki Serigne Saliou joxoon ndigal la mu taxawe woon liggéey bi mu doon tey Serigne Touba tooge jataay bi joxaat soxna Soodu Xuma ndigal kon loolu wane na joxañ bu njëkk ba woon démb dellu si na tey muy bis boo xam ne nag dañuy célébrer ñaar rakka ya ca ndar di ko taxawu di ko taxawale yeneen bis yi noonu lañ war a taxawale bis bi di julli géej gi 21 septembre di bisu histoire boo xam ne morit bu nekk war na koo taxaw di ko màggale ci nan teewe jataay ba am na solo lool waaye nag jëf ca ci sa kattan mooy def ca sa alal def ci sa xalaat def ci sa doole ngir mu egg fañ ko bëggee fépp ndax ndami Serigne Touba yi julli géej googu ca bakk te loolu la koy tegtale di ko firndele mooy yàlla jaral gi mu ko jaral moom Xaadimu Rasuul ba mu taxawee noonu alhamdulilah ndakaaru am nañu tawféex feex ji mooy bu ñu nee ñaari guddi ndakaaru foofa la amee waaye xam ngeen ne bu ñu nee julli géej gi foofa la amee kon loolu cër la boo xam ne nañuy defee ca Ndar def ca Louga 12 août di def ca jeewal di def ca 10 août baar yi nga xam ne fu Serigne Touba jaar li lay firndeel ndamam ak njàmbaaram mooy béréb bu sëriñ Touba jaar ña ngi koy màggal di ko célébrer àdduna bépp di ko gis te loolu bu fekkoon ne jëmmi nasaraan bi ci boppam am na ca benn béréb boo xam ne dafa daan Serigne Touba wala mu am ndam ci kaw Serigne Touba bu ko bokk yi màggalee ba àdduna yëngu ca ñoom lu publier ci àdduna bi ne lii la fa Serigne Touba dafa mu nekk ko safaan ngir dàcciloo ngir décroiser loo ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye gàcce nga laama Cheikhul Xadim nga xam ne waxoon na ne alimatul arda inda al mughriqat bi anna ni abdul munil muxaarixat kon bis la boo xam ne bu mat a waajal la waajal ga mooy jëf ci sa alal ndax xam ngeen ne mbooloo mu toll noonu fu ñuy daje te ndaje murit bokk na ca bernde bokku na ca ay teranga bokk na ca nit ñi xam ne la ñuy woote lépp ak jëfi yàlla la muy jàng alxuraan te ay ay téeméeri téeméeri téeméer ci ay kaamil lañ fay jàng xasaayi di ay lim yoo xam ne am na ca yan xasida yoo xam ne sax asay saalix moo ci joxe woon digal ne lañ ko cay jàng ñu di ko taxaw waxtu wu nekk kon taalibe bu nekk war na xam lan mooy taxawaay euh, julli géej gi ak lan la ci kuréel yi war a taxawee ak lan la ci taalibe yi war a taxawe mooy def ci yitte daw jëm ca ndax kat jëf la joo xam ne ku koy def yaa ngi yëg ci sa xol ne bis bii bu fekkoon ne ab safaan xew na tey jii kenn du ko def te Serigne Touba yàlla may ndam boo gisee bis yi bari nag mooy ndami Serigne Touba moo bari amul benn victoire amul ñaari victoire ay victoire yi victoire la am te benn bu ci nekk moom moo ko xombal boppam am ca ndam moom dong waaye wëlbatiku nag ne yow yàlla sama borom lii di jëf juree jii kat na ci jullit ñëpp jot seen wal moo tax bis bu ci nekk ci bisam jullit ñëpp dañ caa mën a jariñoo am ci yiw am ci ngëneel te jëf ji mel na moom Cheikhul Khadim rek moo ko jëfoon kon bis baa ngi noonu kenn ku ne war caa am yitte war caa am taxawaay ànd ko ak soxna Soodo xumma ànd ko ak xisbu tarqiya ñi nga xam ne ñoom la bi jox ndigal ngir ñu taxawee liggéey boobu mën caa jëf ak mboolem kilifa yi nga xam ne it nag ñoo ànd ak soxna si waaye ànd ak bu tarqiya ànd ak ndakaaru gépp ngir mën a taxawee bis boobu mën koo jëfe ndax ab bi amul lu mooy ndigal te sëriñ tuba kenn du ca jëf kenn di la nax ndax loo ci jëf rek boo demoon bu fa gën a sori ci àll ba nga jël sa yëf jëf ko ci am pas-pasu Serigne Touba laa ko defal bu la Serigne Touba di fay du ko jaare ci kenn du ko jox kenn moo lay fayal boppam directement mu ak si yow ndax moom bi doon jëfal yàlla boroomam subhaanahu wa taala ba ko yàlla di fay jaarale ko ci kenn te pay gaa ngi nii lan di tey àdduna bépp mën cee jariñoo kon bés a ngi noonu boo xam ne daal bokk yi kenn ku nekk war na ko bàyyiwaat xel ginnaaw alhamdulilahi yàlla dogal na ci biir weer wii ñetti xew-xew yii muy septembre bi ci la màggal gi xewee muy ci safar bi ko ci la amee ci la ñaari rakk yi ndar yi fàttaliku gi muy ren loolu la dajal ren ñaari rakk yi ci biir safar bi la am julli géej gi am ci biir safar bi kon day mel ni weeru safar bi ren dafa ndambe mboolem yi yëpp ñu jóge ndar dal ci màggal gi bu julli géej gi ñëw nag doon jeexintal bi ñu jëfe ko taxawu ko soññi ko def ci suñuy alal ndakaaru yëg ko àdduna yëg ne daal lii ndigal la lu bàyyi ko ci Cheikh Mahamadul Muntaqa waaye kenn ku ne war caa taxaw ba bis bu fi mas a jaar na muy doonee ndam mu gën a yokkatiku gën a dolliku gën a sax yàlla nañu ko yàlla taxawul te doon ñu kattanal te maynu ay xéewal yoo xam ne de na ko ca mën a jëfe taalibe bu nekk war na caa mën a jëf ca béréb ba war na caa mën a jëf ci alalam jëf ci ci alxuraan jëf ci ci ay xasaayit ni ko sëriñ bi bëggee ànd fa nag ak dal ànd fa ak yar ak teggin wone ne bisu sant la bisu ndam la ndax bokk yi mbër mi nga xam ne dafa daan bu ay suqam di mbër mi nga xam dafa daan ñu ko supporter seen xol day sedd waaye lii li muy tegtale mooy kii wax ne yàlla la bëgg kii wax ne diine la bëgg ñu ne ban événement la lan moo waral tey bis bii ñu di ko célébrer ñu ne Serigne Touba day bañ a faat waxtu boroomam Serigne Touba day bëgg yàlla Serigne Touba day jëfe ndigalul boroomam moo ko jaral mu sànni ab dërëm ca gaal ca géej ga kabbar julli delluwaat ca loolu euh, bind ka di wax ne kabbar ca douche delluwaat ca gaal ga gooleer a teeray noonu digal gaal ga te di defewu ko woon bàttin ndax ci mag ñi am na ci ko mas a laaj euh, kenn ci ñoom ne ko lan la leen Serigne Touba wax ci julli géej gi mu ne ko doon naa ci wax ak moom bis laaj ko ne ko ndax julli géej gi xar baax la mu ne ko déedéet jaamu yàlla képp laa ci jubloon jaamu yàlla képp laa ci jubloon kon nag jaamu borom subhanahu wa taala moo ko jaral loolu waaye yàlla fay na ko nag tey inna allaha la yudiyu ajral muhsinin yàlla du sànq mukk payuk aji jëf lu baax aji rafetal kon loolu la yàlla fayee Serigne Touba kon bis baa taxaw jëf ci ànd ci soxna si ànd ci Hizbut Tarqiyyah ñu jëfee ko taxawu ko ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee te loola nag la koy def mooy taxawaay bu dëgëral laaj jëf ci suñu alal jëf ci suñu kàttan taxawu ko fekke ko yëg ko dundal ko kon noo ngi ci jox ñëpp rendez-vous incha allahu le 21 septembre ci Ndakaaru wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu والقلم وما يسطرون mbokki jullit yi compagnie C3S dellu ànd ak yéen nam ko baaxoo defee ci jongante bind alxuraanul karim édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi fas nañu yéene door ko benn pan ci weeru octobre mu war a jeex fanweeri fan ci weeru octobre yow mi bëgg a bokk ci jongante yi da ngay bind am xët ci alxuraanul karim sa tur sa sant sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci boutique c 3 bu la gën a jege ci biir Sénégal wala nga jaarale ko ci sunu plateforme bii di candidat point yaatal mbind topp tegtal ya lay jaarale ci yoon wi tax ñu mën a jot ci sa dépôt coppite ya ñu ci indi képp ku bëgg a bokk ci jongante yi say at wërta romb ñeent fukki at moo waral képp ku jàll ci xaaj bu njëkk bi da ngay indi këyit guy màndargaal say at photocopie d'identité wala et cetera ñi bëgg bokk ci jongante yi te bokk ci régions yii Matam Ziguinchor Tamba Kolda Sédhiou ak Kédougou mën nañoo dem ca boutique C3S ba nekk Ibra Sogi wala ba nekk Ziguinchor wala Tamba wala Serigne Ousmane Diama nekk Ranérou 77 784 15 46 wala Serigne Ahmed Tidiane ma nekk Matam 77 424 23 23 21 ku ci bëgg ay leeral foo mën di nekk ci réew mi ak bitim réew 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 alxuraan ay nga neel ku ca am ak na meel yàlla dal koy goreel anta bi ni'mati rabbika bi majnun